ba dugal ki nga a ni moom mooy. booy njëkk numéro 2. bul paas yaa ngi toog jërëjëf. man damaa gunge si rek. déggoo ma ne. soo fi ñag 2 ñag 1 la kay. waaw oh, sa jëmbër. wàllu biir yi moom mi luur. wàllu biir yi la. dem. loolu ñu dañuy jàpp la. waaw mais wax yaa ngi sa ziar rek moo des. yaa def ñaari ndam dox la dox la foo dox. Thank you. nga sol sa daal ñëw fa li la ko bokk boo bi la taxaw dama seen balaa nga ñëw wala ba ñu ñëw ba dem ma seen ñëw wala ngeen daje loo fa dana ma gis sax waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu Pikinois yi ñëw nekk yëpp et puis di nuyu presse bi bu baax a di nuyu jox yaa ngi ngeen bi liggéey bi yombul di leen masawu doon bu baax a baax di nuyu sama mag di bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu Pokola di nuyu ñëpp ak ñi teew comme ni nga ko ni da ngeen a mënoo mbër nii la a demee ma ne ko waa nii la war a te nii lay demee sax fii nii a te nii lay yoon leen lu tëb lu lii dañ koy yàq dana yàqal waa Pikine dana yàqal suñu bopp ñu ne war a demee dañoo war a bokk ndey bokk baay ku ne li nga am yàlla moo la ko may mënu ma lekk sama bopp lekk fu mu mën loolu mënut a nekk nañ jox ku nekk lu mu moom ñu bokk ndey bokk baay ñu jàpp mu dëgër keroog am na benn mbir boo xam ne nii booy la dama ko woo wax ak moom man ko ñu xaar kenn mu ngi benn ñëw ñu defaral Pikine ñu ay mag ñu jëmu nag yow yaay sa yow yaay say doom yaay njaboot ak ginnaaw ñu ñoo koy defaral suñu bopp duñu bàyyi kenn ñu ko defaral te loolu mooy yoon wax Pikine waa yëpp ñu jàppale ñu bu mën fay bu mën dem tey boo xoolee ni ko organisé fan kër boo ñaala fan kër avant fan kër mu seet naa ko doo organisé maa ngi fan na a rafet ni sa ginnaaw comme ni ma wax ñun kenn du a conseillé ku la conseillé ci ñun dafa sob rek yaa ngi gën a mën mbir bi yaa ngi ko dàq yaa ngi ci njëkk fuuf yàlla yàlla may ndam bu set booy incha allah Pokola tamit Pokola tamit maa ngi lay ñaanal yàlla booy nga maa ngi félicité Sakho Balde Demba waaw Jacob Baldé maa ngi koy félicité bu baax a baax ci ndam bi démb di wax ni Jacob kontaan nañu bu baax a baax maa ngi koy félicité Doudou Sané aussi maa ngi lay félicité léegi maa yow gise nañu léegi man la léegi biir nga bokk xamal loolu donc jig la lay ñaanal ndam bu baax a baax a baax man nag les maintenant bi may laajee. Pape Sarr ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw yow yaa ngi taxaw bu baax lañ ak li gënal lañ ak. ñu ngi gërëm bu baax a baax gis nañ taxawaay bi bu ñu limee dañuy jur bari na yéen ñëpp yéen a ngi taxaw fii ci Dakar bari na Pathé Baldé suñu mag jur Baldé ñëpp bari na yéen a ngi taxaw mu naaj. ñu ngi leen di wax ngeen teg seen tàng foofu parce que ku ci nekk rek bu defee nii rek bu ñu amee gaal dañuy nangu gaal bu mucc booy bu xool ku ne bu xool ëmbam bu mucc di xool gaal gi gaal gi mooy Pikine ñu fexe mu ci am ndam loolu moo neex loolu mooy dëgg luñ def lu loolu yàq nañ ko maa ngi nag lancé appel képp koo xamante ni ko tey da nga Pikine nga jàppale gaay fii yombul seer na maa ngi ñaan Isaafa Diop mu jàpp ci Thierno Ndom Ba maa ngi wax mu jàpp ci Abdoulaye Tipo suñ grand Ibrahima Diop bàyyiwuñu kenn Modou Gueye mu aay si Pikine bàyyiwuñu kenn ñu wax ñëpp ñu jàppale gaay ci fii ñu tuye saati ba mu fees ñu ñaan yàlla suñu borom moom mu yor ndam mu may ñu ndam incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp am na beneen combat mu ngi mel suñu frère Ama Baldé ñu ngi ñaan mu ñëw ak jàmm bu ñëwee yàlla may ko ndam di wax ni nag affaire bi sas la Eumeu Sène Pokola nii gars yi taxawee yàlla may leen ndam yàlla leen yàlla may ndam seen guy bu ñu paree tamit ñu ñëpp nañ taxawaat noonu ci combat Ama bi bu ñu paree keneen keneen noonu bu ñu tegg tànk nañ xam ne affaire ñu ko defal ñu ñoo koy defal suñu bopp maa ngi sant jëf jaajëf ñu jëm ci dañ dëpp ji nag ay singa Eumeu Sène mi ngi nii toog waaye Lamine Gueye ci bii mi ngi nii toog moom tamit liif Fadal Niang Dakar Buzz sunu mag Iba Kane mi ngi nii toog ñoom ñëpp ku ci nekk tey dinañ la jox kàddu nga posé question Eumeu question bi nga xamante ni moom nga ko bëgg posé ci diggante mag Sa Thiès Sa waaye màgg na ko Eumeu Sène Sa Thiès ku ko xam xam ne dafa mën bëri ak lu bërki dem bi muy bëri lu nekk ci arène nationale bi a ne gis na façon li mu bëri ñu bëri ne ñu bëri ne euh, Eumeu Sène na moytu xeex ak Sa Thiès di laaw parce que boo yëkkatee laaw rek Sa Thiès à tout moment mën na la bët jumloo ñooñu lan nga leen di wax d'abord balaa ma lay jox faaral fi dugal asalaamaaleykum ñu ngi di sant di sant di julli ci bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur yu di ñaanal Sénégal yëpp yàlla fi yàgg. waaw ma ne ma ne Sa Sa Thiès koo ko xam-xam ni attaquant la dafa gaaw te kat la te ëmm day xeex te buy xeex lay laaw. boo xeex ak Sa Thiès est-ce que wóor na nga xeex ak nga jàkkaarloog Sa Thiès xeex ak moom di indi laaw parce que saa boo indee laaw mën na laa ko di waa kenn du dem nag guerre di wax say arme waaw nañ jàpp a préparé du solo baax nii a nii soo paree ñu jox Lamine li ci biir Lamine pare ñu jox Babacar